image yi mu doy waar lool sax subhanallah image yi yéeme torop ndax jullit nit jigéen ah war na lii jëf ji mu def ëpp na nga jur am sa ñaari doom yóbbu leen sa kër yaay teg leen fa jël sa doomu wujju nga xam ne mu am ci yow confiance ba mu ñëwee ne sama turandoo laay jël dafa day yaay ji jibuntu bi yaay ji ne ko mu ngi ci kaw demal jël ko nga dem jël ko ba nga demee jël ko bu ñu xamoon ni nga koy def duñ la bàyyeeg moom nga yend fa lekk fa naan fa nekk ak ñoom ci jàmm naxtaan leen jël xale bi yóbbu ko def ko jëf ji ñu koy wax mu taxaw fi mu taxaw ba démb bi ñu waa ba ma àndeek waa sapeur ñu dem biir commissariat maa ngi jàkkaarloog moom ñu ngi ko teg ma ne ko yow waxal foo dugal doomu jàmbul nanguwul wax te boobu fee bi am na ma ne kii yore ma ne ko yow dafoo jinne jàpp la buñ la téye ba bàyyi di wax foo dugal doomu jàmbur bi ñu dugal ma ci biir ma waxtaan ak ñoom différence ak kin ak ak di ak bi mu sol ci kaw dafa am xonk volant yu weex la tisi bi gaz la tubéy bi noir la doyaluma ba ma ñëwaat naxtaanaat ak yaay ji man ne ko waa police de ñoo may laajal ndax li ngeen ma waxoon dama koo fàtte pour bëgg am certitude exactement ñu ne ma baabu noir la sol lii la takk teel teg teg ak photo bi ma gis benn nit bi la. moom mu gañe ci len ku tuddee doom mu am âge un an deux nga yendu fa ñu defee la teraanga ju toll noonu ba lakkal la mboq nga yóbbu xale bi rey ko lan la ci gañe ak fiiraange la wala dafa wérul wala lan la lan mooy problème ah ci ay wax de déggoon naa ne dafa am ay àndandoo waaye ami bi ma gis démb dërëm jotu ko li jëkkëram wax lu wokkul dërëm wokku ko ndax yow li nga def nga def ko ba pare guddi googu ñu lay woon nanguwoo de décroché ku vocal nga liir ko di connecté wu di déconnecté wu normal jóge fa dem sa kër mag fanaan fa yeewoo foofu ne ko damay dem Kébémer bàyyee ko foofu dem ba Kébémer bëgg a làqatu bakkan dafa foor bu dee fiir moo tax mu def ko yàq na ko ndax kii gën na ko demit fu mu toll nii moom moog jëkkëram am fu muy gisatee jëkkëram maa ngi ca kii gën na ko demit fu mu toll nii diggante moom ak boroomam la ci jëf ji mu def yaay ju doonu ci dara xale bi doonu ci dara moom ak boroomam te dina ko gis fii ci àddina gis ko yomal xiyaamati yàlla kenn du ko jiitu ci ay jaamam yàlla kenn du ko jiitu ci ay jaamam euh, en tout cas man dama choqué wu man dama waaru. léegi euh, li may wax mooy que ni ñu naan dafa am problème bopp lu tax rayul doomam lu tax rayul doomu caamiñam lu tax mu denc ay doomam ray doomi jàmm doomi wujjam. waaw loolu moo jaaxal ñépp nag ndax nga jur say ñaari doom yóbbu leen sa kër yaay ba ñu juddoo ba tey âge bii mu rey bébé bi nii. ay doomam tolloon nañ ci âge boobu ba dépassé ko macha allah dara jotu leen nga jël leen yóbbu leen sa kër yaay wàcc leen fa ñu nekk ci sécurité say frère ak say sœur ak sa entourage ñëpp jur nañu jëloo ci doomu kenn waaye yow nga ñëw ba sa kër wujj ak turandoo ni mu neexee man de xam naa ci dara man mi am turandoo ci biir kër gi. man de xam naa turandoo nu mu neexee man mi am turandoo ci biir kër gi yow amoo dara looy def lu dul jël ko naxtaan seen waa kër dem tas seen yaakaar. mu tas seen yaakaar xaw ma lum ci jublu waaye moo ko yàlla suñu borom la. yow bi ko gisee ci police bi moom mi jëf-jëf ci ci ban état la nekkee mi ngi doon wax boo waxee mi ngi lay tontu. état bu normal ku dara saful fi ma ko fekk ma toog ma ne ko am mbay yee ndax sama xol dafa jeex ndax ñun ñiit lekk taluñu lekk taluñu naan suñu xol dafa dagg ñun ñëpp ma jàkkaarloog ma ne ko am mbay mu ne maa ma ne ko yow foo dugal doomu jàmbur bi mu ne ma nee naa la damaa demoon géej lal tëdd foofu ba ma fekkuma fu ñu jël ko. man ne ko da ngay dof dof lu dof dofoo jinne pesu la yaa policiers yi di ngeen ko lijjanti mu ngi ci état bu normal tiitul raful ki ko euh, ki kër sëram bi mu dem ci guddi gi sëram boobu nee na ma tiitul raful deful dara en tout cas daal gis na ko ñëw na ñaq tooy xepp trois heures te ñun 23 heures boobu ñu ngi ci wër bu metti ñu dégg nit. ñoo ko déggandoo dinaa leen tegalaatal yaayu xale bi ci boppam wax na yaayu xale bi ñu des si ginnaaw dinaa leen tegal vidéo am na lu ko metti lool pour ñuy doog a ñëw naan kali récap récap waxaatal fekkewu leen début bi ma andi leen vite fait xale bi ngeen di gis sama ginnaaw at la am ak ñaari weer xale bu jigéen dañ ko fat, dañ ko boom kan moo ko fat, wujju yaayam xale bi ku ko jur ñaareel la aawo bi moo rey xale bi te lu si gën a garaaw ki ko boom turandoowu xale bi la mais kali s'il te plaît recap maa ngi ni di wax noonu wala anglais ngeen bëgg ma wax yéen da ngeen di toog ngeen déglu man daal se comprend pas xam naa ne yéen a ngi doog ñëw mais bu ngeen dégloo di ngeen comprendre s'il vous plaît après ma jël ñeneen maanaam benn xale bu góor moo tax ñaari soxna kii aawa kii ñaareel aawa bi am na ñaari doom ñaareel bi am doom doomu ñaareel bi moo nekk nii léegi aawa bi ak ñaareel bi fu nu dëkk bokkul léegi aawo bi dem kër ñaareel bi ne ana sama turandoo tombeeg juste ak wujj bi di génn mu ne ko sa turandoo mu ngi ci kaw fekk boobu ñaareel bi dafa amee dëj ne jaayam moo gaañu muy dem foofu mu yegg si kaw comme turandoom la waa kër gi amuñu pour intention ne ko doo yóbbu sa turandoo dama koy yóbbu pour jëndal ko bonbon ñooñu mel ni comme yaayam la rek ñu jox ko xale bi bañ ko joxee xale bi si la dem bi mu demee toute une journée gisuñu ko gisuñu xale bi ñu woo ko téléphone muy sonne ba coupé du jël buñ ko audio whatsapp mu déglu ko mu liir du tontu ñooñu tamit dem wax ko police pour police mën a def recherche daal di localiser numéro bi xam kii fan la nekk xale bi ba police localisée xale bu jigéen bi yóbboon xale bi yëmbal la dëkk mais mu ngi teeri Kébémer jël na oto ba teeri Kébémer police daa di koy ñëw jàpp daa di koy andi seeni commissariat daa di ko ne yow danga jëloon benn xale sa turundoo di sa doomu wujj ana xale bi mu ne xale bi de dama nekkoon géej ni ma tëddee noonu rek jóg gisatuma xale bi ah ñu ne ko loolu mooy lan gisatoo xale bi li ngay wax leerul si la ñu commencé def recherche pour gis xale bi si la ñu jékki-jékki am ñu gis benn xale bu ñu sànni si teen foofu ca booru Malika côté yëmbal ba ñu gisee xale bi ñu sànni ko si teen am ñu yëg ne que xale bi ñu ngi ko doon wër ñooñu daal di contacter famille xale bi ne am na benn xale de bu ñu force si teen est-ce que du ki ngeen doon wër. xamaguñu ñu commencé décrire décrire décrire lu xale bi soloon ainsi suite ndeke xale bi la si la dem police famille bi ñëw wax lu xale bi soloon ak nu mu mel ñu wan leen vidéo yeeg wan leen xale bi ñu ne kii sunu doom la noonu la si xale bi toll xale bi génn na àdduna xale bu am at ak ñaari weer jigéen kan moo ko def jëf jooju aawo bi aaw buuru këram joxul xale bi gâteau jëndalul xale bi bi biberon joxul xale bi yére jël xale bi sànni si teen xale bu am un an deux mois gisuñu lu ko war a mën a jar si kaw suuf lu ko war a mën a jar si kaw suuf bu dee yaayu xale bi moo la def mën nga jàkkaarloo moom dóoranteeg moom are mais xale bi laajtewul dara am nag ñu naan peut-être dafa amoon ay rab mais ku am rab jël say doom làq ku am ay rab boom xale daa di jël oto di utiliser WhatsApp rab boobu de xanaa Sénégal rek la parce que boo amee rab balaa ngay dem si keneen yow yaa war a njëkk jam sa bopp di dagg sa bopp ñu naan rab yee koy jamloo boppam rab yee koy bëndloo boppam mais am rab déplacé wu dem ba jël benn xale bu tuuti daal di génn ak moom dem jëf-jëf ju ñaaw ji doy na waar ban Sénégal la ñu toll nag actuellement moo jaaxal ñëpp parce que ba mbiru nabu lay jaaree fii ñëpp sëngeemu ñëpp jommi ne jigéen lan la mën a defee yi ñaaw teef pareegunu ñu giseen jigéen defaat lu mel ni góor ko doon def parce que dañu ne góor góor dafa wow xol mais jigéen xam lu si neuf de grossesse jigéen xam lu nekk ca taabal ba jigéen am doom tey yaay xale bi tey nu muy nelawee yaayu xale bi tey nan lay tëddee nan la ko nit mën a waxee muñal ba mu muñ si koo xam ne jàpp naa ne xale bi sax ferul un an deux mois sa doom bi nga doon nàmpal nga jékki-jékki mu ne may bu doon keneen moo ko jël yóbbu rey nga ne ab ah, bandi la bari nañ ci dëkk bi mais sa wujju wujju bi nga dem ba tuddee ko xale bi kan nga nar tuddee tuddeeti léegi doom kan nga nar a wóolooti tey kan nga nar a wujjoonteel tey parce que yàgg na nu gis nag affaire de wujju yi wujju jël dawlin sotti ko wujjoom wujju jël paaka jam ko wujjoom wujj jëm lamset dagg ko wujjam wujj jël paaka jam jëkkëram ndax fiiraange mais xale bu laajtewul dara un an deux mois wujj boobu nag trop c'est trop xale bu jigéen bi nag moo ko def mu ngi nii yëmbal la dëkk mbay la sant moo ko def de léegi dañuy tàppatoo tooti di ma tegal leen yaayu xale bi lu mu expliqué après mu ubbi antenne bi ngeen dugg yëg après tegaat yeneen vidéo yi ah comme ça mu bañu a guddi waaw dañuy déglu yaayu xale bi waaw yaayu xale bi en personne nan ko déglu bebe bi yaayam waaw xale bee ngi nii te ñëpp xam nañ ne xale moomin la mu ngi ci àjjana yi kawe mais moom mii tey wujj bi faat moo koy poussé doomu aadama xëy na di ngeen ko wax seen xalaat donc ñu déglu yaayu xale bi mooy wax sëy xale bi mooy wax nii excusez-moi. ñu bàyyi la nga nuyoog ñi lay seetaan euh, tu nga fàttali tur bi noo tudd. Sira boobu salaamaaleykum maa ngi tudd Sira boobu sama sama sama wujj moo ñu jël sama do. d'accord barki dem bi fi ñëwee. oh là là. ni wax ci vidéo bi yaa naan ba tey am njort bu rafet naan mën na nee ba finalement nga dégg rey na xale bi sànni ko ci biir teen nan lan la annoncé deewu xale bi. ah kii waaw nangul wax biñ ko jëlee indi ko police ba laajte nañ ko biñ ko laajee waxul dara euh, sama xarit jëkkër yi ñooy jën dem si ñaankat yi ñu xoolal leen ñu ne mu ngi benn baraag mu ngi feneen ñu wax lu ne ñu ngi fee mu ngi fee bu ñu demee démb si police ba ñu laaj ñu. mu ne mu ngi benn barak sama ñu jigeer ak sama mag yépp ñu jug foofu dem benn barak xëy nu ñuy jugee foofu dem foofu ba guddi ay 20 heures <coughs> ñu ñibbisi bu ñu ñibbisee ma ne leen loo leen dégg ñu ne man dégguma dara ma ne déggoo leen dara ne waaye dégguma dara léegi affaire bi bàyyi leen ko ci police bi si loxo police man ko y'a pas de problème après ci la ndey binta wooma ne ma siré sa doom lan la sol après ma expliqué ko ma ne ko benn bas noir la sol ak robe robe bi ci kaw rouge kii la euh, rouge blanc moo si suuf dafa am gage blanc mu ne ma ah mu ne ma waaw sa fi nu ma laa ne après benn kii xale bu góor tamit woo ma si téléphone bi mun an ah, si jëkkër ma ne ko sama jigéen dafa génn xëy na mu fekk mu ngi dem sangu ji après ma woo papa ma ne papa kaay wuy ma sànni ko téléphone bi. papa wi mu jël tan ma téléphone mu dénkaane fofu xalé goor suñu kër après waxum dara ma laajaat ko mu ne ma dédé dama yobbu kay kay di lan ma laaj dama yóbbu kay di kay dem bi laay la ma laaj ni dama koy yobbu fofu man ko y pas de problème way man mom wax dëgg yalla jaaxal na torop lool mom yéeme na ci man aw amuma dara lu may wax amna na ay njabot man mom julit la duma kafir duma duma dindi bakkan sa fi ma tok ni su yene na doma mi lu bon yal na ko ko par sama kaw yene ma domum dara dara udul lu bax parce que xale yi ñuma dara yaayam moma def su ma xamoon tamit yaayam ni la melon mamum moom duñu sekkoon dara wa jenna naa joxna ak su loxo yalla mamum yan nañu yàlla atte mais sa wujju la peut-être ci sey bi lan ngeen dund ba tax mu def lii parce que lii jàpp na ne lu mu préparé la da ngeen daan xuloo wala da ngeen daan tongoo wala dafa bëggul woon bi wala lan la comme yow yaa ko fekk si woon ma musuma xuloo musuma mus dara musu jote maa ngi moom suñu diggante jàmm ak salam damay xëy fajar dem liggéey wàcc vingt heures wala vingt une heures su fekkee man maa ayee ma togga sama jëkkër reer fekkee ayoo ma sangu ba set julli lol la am liggéey lan lay na mune joté mom o sama suma kër bay mën na tok fi ñaari wër té duma fa ték sama tank. ndax suma waccé lan la tal julli té di nelaw lol la tal té lu man yoyu man xawma yoyu sama yaay ñaarel la way so gisee sama turundo mu ñini ñun do xamé kenn kan moy dom ké ñun ñëpp dañu def ben way ki fu ma génné mom daf ma daf ma bet tas na sama yaakaar waaye bàyyi ko ci loxo yàlla. moom dara ta daan ñëw ci kër di yendu si foofu di fa wax xale wala lii mi ngi mu ngi ma tox si fii nii mu ngi doog a am. parce que xale buñ la e, tuddee nga am ci moom affinité boobu xale bu am an nga mën ko def loolu aussi dafa jaaxal ñu bari. dafa bëggul bi. bi la bëggul. bëggul bi parce que su nga bi xale bi rek nga yene ko lu bon rek da ngay xalat tour bi rek sa nga bay ko way bugul tour bi su bugon tour bi du def ni way bugul tour bi. est-ce doful. doful jinne ko dara dal ko parce que rayul domam saniwul domam saniwul ay dom bokam dara dalu ko mo ay vendredi samedi man ma aye sama jikir fop sama jikir mom su fekke xamna day may dem jaay parce que xam ne day du ma nekk kër ga day su su ma su fekkee man maa aye jot ay dimanche day dem ci xaritam bi foo de nekk ba xam ne heure bii laay ñëw mu wala mu njëkk ma kër ga wala su fi ñëwee mu woo ma mu ne man de maa ngi kër ga man ka man te maa ngi si yoon bi maa ngi ñëw. bi may ñëw di yéen si kër ga est ce ngeen avant ci buntu bi mooy maa ngi ñëw seet sama turandoo ma ko sama yaay ak sama mag mu ngi foofu man damaa am sama sama nijaay dafa gaañu ñoo ñu dem mu ne ma waaw après noonu la yëgee man tama dem sama yoon ci laa dem ba si kanam rek waaye nga rek yàlla lu muy def yéene xolam bi lu nekk ci xolam bi yàlla yëgal na ko sama yaram chaque jour maa ngi woo sama yaay ma ne yaay sama doom mu ngi foofu mu ne ma waa sa wujjo sax mu lay xaar fii man ko maa ngi ñëw léegi xam nga kay yoon bi kay moom day xat doo mun a profité ni nga bëggee ñëwee doo ko munee ñëwee noonu. ay dégg après ma wàññeeku ma toog non ni ñu non rek sama yaa mu fekk sama yaa sama yaa sama do sama yaa nee dama ci kaw sa jëkër mu ñu fo dama laaj ko na papa an sama do mu ne am mu ko yor mu ñu kër ga ma ne ban kër mu ne kër bu mag après ma yoni sama do sama do dafa bëgg ma ñëw fi gisuma ko wóor fii ko papa mu wul fi yup gisuko après ci la dem suñu kër ma yëgal suñu wa galé man ko man gisuma sama doom ji de jug leen waaw. Massa Mbisey du muy lu metti lu naqaree expliqué parce que moom wujjam lan ni moom moo rey doomam te ki ko rey moom lañ tuddee xale bi ñëw na fa yandu ba ngoon jël xale bi sang ko dem bi ko sangee dem ci leen gëj a gis xale bi finalement buñ ko wooyee du jël buñ ko lii envoyé vocal nee mu lii du tontu. li ci am ngeen gis ko noonu day binte mi doon woo wax problème xale bi sànni ci teen bi léegi xale boobu ñu doon wër moom mooy xale bi ne ci teen daw tey ba yàlla def tey ñu ngi noonu di ko waajal ngir jébbal ko boromam tey euh, lii lan la ciy gañee parce que tey sa doomi wujju nga def ko lii tey ci ku am doom lan la ci gañee ak lan moo jar li ci am ah, gañewu dara dafa ut ci yàlla rek lu muy yóbbaale rek lay ut parce que nit moom il faut nga am li nga def nga am sa borom su bis boo deewee sa borom lum lay laaj loolu doon ut am na ko lii la doon ut am na ko waaye garaaw jël naa lépp jox naa ko si loxo yàlla yal na yërëm yal ko yàlla yërëm xar ko ay jànn sama doom ba heure bu ma ko fekkee. jërëjëf Seydou kon lii moo nekkoon li leen toppal fii mooy xale bi ñu doon. donc yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo. dinaa ñëw si yeneen vidéo yi mais dama bëgg a ubbi antenne bi après jox ñi nga xam ne ñu ngi toog seen biir kër seen xol metti na lool ñu wax ñu lan moo waral lu mel nii est-ce que sénégalais bi nu xamoon démb wala sénégalaise bi nu xamoon démb est-ce que sénégalais boobu moo am ba léegi wala est-ce que sénégalaise boobu moo nekk ba tey est-ce que ñun soppiwuñu est-ce que jëluñu ay nit yeneen dëkk soppi ko ak ñun sunu nitu dëkk nga xam ne foo doon gis xale bu ndaw danga doon jënd tàngal may ko foo doon gis xale bu ndaw da nga koy fob di kaf ak moom di ko fóon rawatina xale bu tuuti bii macha allah am un à deux mois ñëpp même ci mbedd rek ngay dox rek gis benn xale dalay jar jënd bonbon bébé am. wala nga gis xale nga koy xool qu'est-ce qu'il y a di kaf ak moom. ñun loolu la ñu xam mais dem ba jël sa doomu wujju daa di koy boom daa di mën a jël oto yeeg tranquillement daa di dem ba Kébémer toogi problème am na donc le temps rek ñu tappate ma jël ñi si ligne bi bu ko defee incha allah ñu war a mën a waxtaane benn par benn rek après lan moo waral lu mel ni allo waaw waaw sister ñu ngi siyaar

doful jinne jotu ko jinne mbéju ko pantongalu ko àndut ak ay farimata ba ndax dafa bon lii ne dafa bari ci jigéen ñi gis nga ñu jigéen xam nga léegi lan la ñuy concurrence concurrence suñu jaay concurrence suñu liggéey concurrence suñu takk suñu ndigg li ñuy concurrence mooy